dañoo fas yéene delloowaat kàddu bi ak lu làmb yi xam ngeen ni ci biir émission mbokki téléspectateurs yi maa leen di nuyu di leen siyaar leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ah di leen bëgg fu ngeen mën a nekk rek di leen balu àq bu baax a baax a baax a baax a baax di leen wax ni nag tey ñu ngi ci mardi maanaam talaata 29 juin 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglekaay yi li ñu indi ñu doog a dikkaat ak yéen si waxtaan bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mardi 29 juin 2021 dañu ñëw ak yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doo rek ko yëglikaay bi di suñu lamb nag tey xatam mu njëkk fa mu la diggante Boy Niang numéro 2 bu Pikine la càppaaculi ak Tafatine la géant di Bawol mel ni ki nag ñoom ñaar seen jàkkaarloo ba nga xam ne am nañ ko bërki démb ci dimanche ji ca TFM daal yëglikaay bi di suñu lamb ca la xëy dikkaat ci la ma gis nag ne na soo bëggee dégg dëgg moom jàkkaarloo ba calme daal defal na ko maanaam dal dal daal amoon na fa lool lool lool lool avant tamit tempête ba di commencé di jóg waaye loo ci mën a dégg daal ñoom ñaari mbëree waxante nañ ndax Boy Niang moom la mu xamal ka nga xam ne moom moo di Tapha Tine nee am ba des daal bëre moom day am xeex tamit day am na tamit na leer booy ñang ne ñuy wax ne daa jël risque booy ñang ne ne leen jëluma risque tey suba waxi noppi ne na laa jël mbëri laa jël comme mbër yëpp fas yéene bëre ak moom tey itam jàpp na ne dañuy bëre ba mu neex waaye waxi risque moom booy ñang na bu ko kenn wax mu ngay woo Tapha Tine tamit ci wàllum xeex ne na loolu daal plaisir lay doon pour les amateurs maanaam ñoom ñaar ñu jàkkaarloo jàmmaarloo ba mu saf-saf balaa ñoo laalante sax di bëre tafaatin daal mu mel ni ki moom tamit tontu na booy ñang nee na daal nee na ko daal li am bares muy xeex beeg bëre mu ci mën a doon daal lépp lu combat bi laaj daal tafaatin nee na ko booy su keroogee daanu ca a neex a neex ba yegg ci lool tafaatin yemu ca nee na ko tamit booye boo jàpp sunu bi dàq ren ci saison bi loolu la di tontu boo xam ne tontu na ko booy ñang mel nekkoon daal loolu sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci beneen combat boo xam ne ni wala yeneen combat yoo xam ne war naa am am bokk na ci ka nga xam ne moom moo di Mame Balla borom top 5 ak mbay guy gi mel ni ki nag yëglikaay bi ne daal wala boog Ahmed konaate mi nga xam ne ni moom mooy coach nekk fa nga xam ne moo di ca tënge daal li moo xam ne daal nee na la 4 juillet moom Mame Balla am na benn client boo xam ne daal ah fa mu koy yekkalee ji dana doy waar Ahmed Konaté daal loolu la gis te client ba ne na du kenn ku dul ki nga xam ne moo di Mbaye Gouy Gui ba tey ca bisu 4 juillet booba fa nga xam ne moo di ca arène nationale ka fay dem moo di jéy seen mel ni ki baam ba nga xam ne moom la tëgg mu dox ci diggante Abdou Diouf bu waalo giridee bu faas ka nga xam ne moo di Max Mbargane di ab technicien moom la mu ci xëy xam le guddul gàttul ne na ñoom ñaar daal boo bëggee dégg dëgg Père Max ne na ku juum daanoo loolu daal mooy ay waxam ka nga xam ne nag moom moo Gris de ñoo bokk benn écrit muy Tapha Gueye numéro 2 barki démb ca samedi jii nu génn mu ngi doon bëre ca kaw Kaolack fa nga xam ne ni daal moo doon ca passoir ak xale bu ñuy wax lagros bu passoir waaye Tapha Gueye daal soo bëggee dégg-dëgg lamb jooja moom ab defet la ca jële ndax nag xale ba ñuy wax lagros bu passoir moo ko mujjee daan kenn koo xam ne moom it dañu koo daan bañ ko daanee nag coow li bëri woon dafa war a bàyyi làmb ak warta bàyyi làmb waaye moom it nekki nag xëy na génnal boppam waxal boppam muy Issa Pouye bu Caaroy Issa daal la mu xëy xam le ginnaaw ba defet ba amee ne na ñii di wax naan na bàyyi lamb isaa ne na leen tey suba wala gannaaw suba bàyyiwuma lamb ne na damay continuer dellu ci samay entraînement liggéeyaat ndax jàpp na ni moom mbër la te ci lamb la bokk ne na lamb nag mook defet ñoo ànd waaye bàyyi lamb moom isaa ne na ku koy wax wax ko sa bopp waaye moom bu ko ko wax ndax bàyyiwut tey suba waxi noppi yemu ca moom isaa ne na samay supporter itam maa ngi leen di jéglu bu baax a baax a baax di leen balu àq li nga xam ne ni am na wala boog mooy li nga xam ne ni dal na ko bërki dem ci diggante mag ka nga xam ne ni moom moo di Alioune Seye numéro 2 moom Issa Pouye daal loolu la xëy tey di ko wax ci yëglikaay ba nga xam ne ni moom moo di sunu lamb mel ni ki nag ka nga xam ne moom la doon bëreel muy Alioune sëy de ma daan Alioune Seye moom la mu xëy xamle lenn la nee na combat risque dëgg dëgg dëgg moom la doon bëree nee nag moo tax Bada jàpp na ne combat ba ñàkkoon ko moom nee na lu doy waar la doon dooni ci moom bu fekkonte ne loolu am na moom mi nga xam ne nii moom moo di alin Seye de daal gis-gis boobu la am maanaam keneen koo xam ne tamit bés booba bëri na combat bu mag a mag ba muy Sa Thiès ka nga xam ne moo koy manager nag di Basiru Baabu mu nga ñëw ci ay secret yoo xam ne Double wax na ko ko ci combat bi balaa moo am loolu Basiru Baabu mu xëy tey di ko wax ci sunu làmb keneen koo xam ne nii moom moom ci ay amateuru simple yi ca la bokk jiite ci ab kuréel muy Saliou Diouf yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ak un million trois cent yoo xam ne teg nañ ko ci dëkk bu ñuy wax kalom loolu nag jëm ci làmb ji nga xam ne ni maanaam àndul ak dóor muy làmb simple loolu sunu làmb ñu ci dikkal leneen loo xam ne ni wala beneen yëglikaay boo xam ne fa la ñuy dem muy les arènes les arènes tamit dikkaat na ci Moussa Ndoye ak Sa ka xëy nag di ca wax muy Amadou Kati Diop ma yore écrit ak Ndakaaru ne na soo bëggee dëgg-dëgg moom combat ba la tax Sa Thiès ko maanaam bés booba moo ca gënoon a oyof maanaam daal moo gënoon nekk en l'aise ci bi par rapport ak Moussa Ndoye loolu la gis yemu ca ne na ki nga xam ne moo di Sa Thiès ne na bi mu génne daan bi mu daan Moussa Ndoye ne na ubbil mu gën a mën a dem ca kaw a kaw a kaw loolu gis-gisu ka nga xam ne ni moom moo di ka nga xam ne moo di kati jóob la moom Sa Thiès tamit yëg likaay ba mu ngi ñuy xamal ne fa mu jóge daal ak fi mu wàcc si sore na lool ci wàllum fayeeku maanaam wàllum xaalis ndax combat bu mujj yëg likaay bi ne na fay nañ ko 60 millions te combat bi 30 millions lanu ko fay yëg likaay bi nag di les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu Moussa Ndoye na nga xam ne nag moom la ñu daan yëglikaay bi nee na moom fi mu nekk nii daal ah fi mu war a aw wala fu muy jaar ba génnaat maanaam amaat combat yëglikaay bi indil na ko ay adversaire moom les arènes bokk na ci Tyson 2 Franc Gora Sock wala Aline Seye 2 yëglikaay bi nee na daal bu bëggee dégg dëgg moom cinq personnes yii wala ñeent ñii daal gum ci jël combat lay doon ak moom Sa Thiès ma ko daan nag yëglikaay ba mu ngi xëy di ñu xamal ne daal daa mel ni see daal teg na ko mën a bokk teg na ko bët ngir nag fas ko yéenee sanctionné loolu lee arènes moo xëy tey dinu wax lu mel ni ki non mel ni ki nag keneen koo xam ne ni tamit yëglikaay bi xëy na tey dalal ko mooy ga nga xam ne moom moo di franc franc daal la mu xëy xam ne daal nee na li am ba des daal nee na soo bëggee dégg dëgg daal digganteem ak ka nga xam ne nii wala boog digganteem ak ña nga xam ne ñoo di waa parcelle mbooloo falaa nee na daal maag waa parcelle mbooloo franc nee na jeex na tàkk tàkk tàkk nee dara desatu fa nee na itam depuis début ba tey maanaam amul loo xam ne defal nañ ko ko lu jëm ci dërëm boo xam ne dañ ko koo jox franc daal la mu le la mu jàpp boog nee maa ngi ñoom moom soo bëggee dégg dëgg jeex tàkk la def aw ma fayam ndax nag fanaane na yéex gama yéex a xam papa lay réccu waaye su ma ko teeloon a xam jàpp na ne kon ba tey dépassé fi ndax daa jàpp ne papa nit ku baax la koo xam ne mu ngi koy jàppale ci biir di ko jàppale ci biti bàyyee ko këram lépp lu mu bëgg a def ci wàllum làmb papa sow yombal na ko ko ci côté bu ne moo tax daal ne na yéex a xam nga daal lay réccu moom franc keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom les arènes muy tafaatin ak la nga xam ne ni daal maanaam ay charge yoo xam ne chargé na ko Pape Thialis Faye bërki dem ci jàkkaarloo ba nga xam ne doon na am les arènes mu xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey ci Equivox TV bu ñu demee mbay gu gi ma nga xam ne war na bëre la 4 juillet ji dimanche jii nu jëm daal open press ba mu doon def démb ca Medina mel ni ki nag open press ba feesoon nag dell dell mbëri bawal ya kenn manqué wul bokk na ca Tafatine Moussa Dioum ñoom Bour Sine kéwél ak zal bawal ak maanaam fépp foo xalaat ne mbërëm bawal daal nekk na fa jegeel zone Medina ba wala nga nekk ci ndakaaru li ko wër sol nga saw daal ñëw taxawu mbay guy gi mel ni kon daal daa mel ni ñoom daal pare nañu di waaj kon nag combat boobu ku ne xam na ne maanaam dimanche ji jëm lay doon waaye am na ci samedi koo xam ne ni mooy mbay yikki ni moo tëg ndongoloo ak nga xam ne ni moom moo de Cheikh Tidiane ñaa la ca neex nag mooy pël bu rafet mi nga xam ne sunu confrère la wala sunu consoeur la bokk nekk ci presse bi di yëngut ci wàllum làmb dañ ko caa jagleel drapeau boobu maanaam bés booba am na ci ab drapeau muy samedi kon gars yi na ñëpp waaj drapeau pël bu rafet bu ko kenn rate nan ci bàyyi xel kon dégg ngeen ko ah loolu mu ñëw ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la moo xam les arènes la moo xam fi nga xam ne ni moom mu di ca Equivox TV la muy ay xibaaru làmb yoo xam ne moo fi koy diggante démb ak tey waaye li ci am solo daal mooy soo bëggee dégg-dégg bu nu ubbee fi nga xam ne moo di sunu làmb moom moom moo di tafaatin booy Niang seen face à face bi nga xam ne nii bëri dem def nañ ko biir TFM ah yëglikaay bi nag nee na la ma avant la tampet waaw daloon na waaw dal na ba yegg ca lool waaw balaa tempête bay am tempête ba nag moom dina am mooy xam naa bis bu ñu duggee arène nationale ba war a souffler su keroogee moom soo bëggee dégg-dëgg léppay jax léppay yëngu waaye nag ñoom ñaar ku ci ne am na loo wax ndax bu dee booy ñang la yëgli kaay bi ne la càppaaculi bi daal la mu xamle daal nee na moom maanaam bëre xeex ah dana loolu moom faw mu am ci combat bi da ci am ba mu saf sàpp sàpp jàpp ne tamit jëlu risque moom booy ñang loolu la wax waaw loolu moom yaakaar naa ne war na ci mën a bàyyi xel parce que li tax mooy bëre dóor bu ñu ko xasee wax moom bëre ak dóor la kon ñaar yooyu yëpp da ko ciy sóoraale kon moom la mu gis mooy loolu mënu cee ñàkk faw mu am ci ndax nag defe naa ne booy Niang de ku ne xam na ne xeex am na lu ko ci yàlla may te wax dëgg yàlla loo waxati waxati xam ne ku mën a bëri la xale bu mën a bëri la xale bu am encadrement la xale bu ñu teg la ci aw yoon ndax laa preuve loolu mooy tey li ko indi tey fii ba mu dugg ci biir am mën a am tafaatin comme adversaire mën a am Balla Gaye de comme adversaire defe naa ne loolu boo nekkul xale bu ñu préparé teg la ci aw yoon nga nangu wéye ndigal doo yegg si foofu kon fi mu yegg si tamit macha allah liggéey na ko waaye tamit jox na boppam ñi nga xam ne ñoo ko war a teg ci yoon mi ñu teg ko ci yoon parce que loolu tamit dafa neex si mbër waaw nit sax laay wax lépp lu mu mën a doon lu ne da nga nangu am kilifa defe naa kon bu waxee loolu yaakaar naa ci côté xeex beeg yooyu ah dañuy xaar bés ba jàpp na ne tamit jëlu risque waaw àddina sax dama naan booy soo bëggee dégg-dégg lépp ay risque la xëy yeewu kese xamul fooy ndax di nga ndékki wala di nga añ ji loolu lépp ay risque la maanaam ça veut mais xëy na nag bu ñu ñëwee ci côté làmb nit ñi bu xoolee dayo tafaatin xool booy ñang ñiy wax xëy na côté boobu la ñuy jàppe na xëy na tafaatin da ko bu doole wala moo ko sut wala nangam ah loolu tamit damay wax nañ ci teey rek parce que làmb la ah. te mbër mi la ñemee ba jël sa avance yaakaar naa ne ragalu la te xalaatu ci yow doole xalaatu ci yow leneen kon booy ñangi dama jàpp ne tey fi mu toll ni ci at ak li may liggéey man pour war pour mbër war ko mën ëpp doole cent pour cent ba maate ko jàll ah loolu day jafe waaw donte que nag nit ñi ni ñu gis seen bët yi gis la ñu mën a àtte waaye nag saa yu rinkum daje amee ci la luy feeñ feeñe te incha allahu rabi xalaat naa ne bu ñu yëgee le huit août rinkum daje dina am mu mel tamit tontu na ko parce que xamal na ko ne daal li am ba des daal mooy hmm, maanaam combat bi lu mu laaj dañ koy def loolu na ko xeex boobu ngay wax ak bëre bi jëlu sax di wax maanaam bés ba la mu laaj lépp lépp lépp Tapha na ko day day am yemu ca moom Tapha ne na ko sama combat yow mooy dàq ci saison bi loolu waxi Tapha la waaw loolu tamit defe naa warees na ko man a xaar parce que combat la boo xam ne pour promoteurs yi ko bëggoon bari na amateurs yi bëggoon nañ combat bi gis nga combat Tapha Tine Boy Niang Mama Lamine Garga 2 nekk na ci com bokk na ci ren combat yi nga xam ne amateurs yi lamb yi dañ ko doon xaar yaa ngi dégg ak guy gi rëg-rëg combat yii yow waxuma na ngeen ko combat la ñuy xaar mais ci am combat yoo xam ne mën nga ne nit ñi dañ ko doon xaar bu baax a baax a baax a kon defe naa bu tafaane mooy nekk meilleur combat warees na ko mën a gëma parce que li ma xam mooy xeex du fa mën a ñàkk waaye faw ñu jàppante te ñu jàppante danga fa gis bëri pire loolu leer na ma ndax tafaatin dafa mën a bëre ndax man mi ko doon fekk ca stade Assane Diouf lu yàgg laa lay wax xulle muy bëre mbappat ak ñoom Balla Gaye ñoom maam góor Diouf ay bàjj seen seen génération yooyu ah Essar Assane Diouf boobu tojaguñ ko ca laa moo lay wan ne ku mën bëre la dafa fekk ne nag mbër nga am benn dayo boo xam ne yenn prouesse technique yi dootoo ko mën a def parce que li tax mooy sa jëmm mooy tax ak sa poids ak itam nga toll fenn fi ci lamb yenn risque dootu ko jël ci bëre waaye ku mën a bëre la ndax defe naa bi muy daan El Hadj Diouf Iba Mar Diop kere ñëpp dañ ne woon tafaa daanu na gis nga dama ko sottee ba muy daan Bazoka wala bi ko basokaa di daan sax basokaa ko daan waaye am na ay mbër yoo xam ne daan na ci façon daan yoo xam ne nii yu doy doy waar la booy ñangi itam defe naa ku ne gis na digganteem ak ka nga xam ne ah, moom moo doon xale grand grand médine bi kenn defe naa ne ah, fala waaw Bécaye Mbaye doon waxee ki are arrêtera booy ña nga xamul diggante ak Sa Kajoor kon seen combat war na mën a neex te itam incha allahu rabi yàpp jàq naa ne yaakaar naa dana neex Konaté Ahmed Konaté di bu coach moom nee na Mame Balla am na sacré client di wax Mbaye Gouye waaw loolu sacré client ndax xale bu bëgg dem mbay mi ma gis démb sama caméraman bi sax may duur ko ndax mu tàng nee na ko bu ma la fekkaatee foofu ndax boobu yaram ma tàng na la may jéglu ma ne ko non man comprendre naa xam nga yaram may tàng des fois mbir am na sacré kon sacré client la moom Mbaye Gouye gi parce que xale la bu bëgg a aw yoon waaye tamit loo ci mën a dégg moom mbay Gouye gi na xam ne am na mag am na koo xam ne ku mën a bëre la ku am xam-xamu bëri muy maam Balla borom top 5 kon la 4 la loolu Assane Ndiaye fa jaar ak bool production bis boobu tamit loolu sa ce que ñu lay ame waaye ca arène nationale jéy seen a fay ñëw ak Giri 2 rakku Giri Bor ak Abdou Diouf Abdou Diouf mi nga xam ne ay victoire am tey ci lamb boo ko doon lim lim ci am écrit face dafa bëri ndax mën naa ne daan na Ousasso daan na Bruce Lee daan na Gris Bordeaux mbër yi mu daan face daa bari waaw kenn na ko fa daan muy Forza tey mu fay duggaat parce que bi fi bi mu mujjee bëre Fass la mujjee waa Fass la mujjee bëre Leewtoo ko tëggoon ca njaareem gri euh, euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Forza daanoon ko tey mu jëlaat xale boo xam ne rakk boo Bordeaux la jóge ci defet ndax ku ne xam ne ni Gris bi mu mujjee bëre arène nationale rëg-rëg moo ko daan mu nekkoon bis bu rëy rëy rëy lig Nicolas jaaroon fa kon defe naa itam bu ñu leen boolewaatee ñoom ñaar ku ne jóge ci defet kii rëg-rëg mujj koo daan kii Forza mujj koo daan ah kon combat boobu dana neex dana métti Père Max nee ku juum doon wax ku juum daan wax na dëgg ku juum yegg teer looloo am keneen koo xam ne Fass la ne moom itam bëri na ca Kaolack samedi ko yoo xam ne a doon am Tafa Gueye 2 wala am xaw a jafe ci làmb Issa Pouye moom nee na bu ko kenn wax waxi arrêté nee na moom arrêté wu tey suba waxi noppi waaw parce tamit sport la ah, war na mën a dikkaat booy sëy nekkoon na fi teglante ay defet série de defet yu baree baree bare mais ku ne gis na ne bi muy demoon na benn moment dafa naan xale yu bëri fere na leen te dafa liggéeyaatoon ba ñëw nekkaat au niveau daan jën kayre daan sitta ah di wan xale yi daan Tidiane fay di wane lu doy doy waar moom booy sëy ba bi muy fii mujj jóge di dem à l'extérieur defe naa ne ci ndamam la toog dem yoonam kon Issa Pouye pourquoi pas loolu booy sëy dafa mën ko def liggéey la rek ak xoolaat li muy doxale parce que tamit il fallait que moom Issa nga nangu tamit bàyyi xel xam que ni làmb ji am na avancement parce que ku toog huit ans bëriwu soo dikkaatee dinga am loo bëri loo perte ci ay repère kon day laajaat

waaw Saliou Diouf mu ama wala boog balaa ñuy ñëw ci loolu sax Alioune Seye ma ko daan ne doon moom comme risque la doon bëre la wax moom Alioune Seye 2 bu waalo waaw effectivement risque la doon def parce que xam naa bu ko Issa Pouye daan moom Alioune Seye 2 dana jafe-jafe yu doy a doy waar jafe-jafe bu Issa Pouye nekk tey bu Alioune Seye daan woon mooy ëppi jafe-jafe xulli man maa la wax lii mais nag heureusement ba yàlla dogal na moom moo mujjee daan waa loolu tamit làmb la moom tamit mu nekk mbër moo xam ne ku jar a bàyyi xel la moom Alioune Seye 2 parce que tamit na ci yoon wi te itam wax dëgg ku daan Issa Pouye ah nam na yoo xam ne war nañ ko digganteem ak Tyson 2 làmb dàqu ko moom Alioune Seye 2 ramasam ak Moussa Ndoye parce que Moussa Ndoye ci série de défaite day neex ndax Moussa Ndoye da ko daan kon defe naa ne foofu tamit loolu Alioune Seye de war na mën a dugg foofu bëree fa Basirou Babu wax na ci ay confidence yu ko dubales wax per Les ñu koy ñaanal yàlla wér-gu-yaram di suñu papa Basirou Babu Saliou Diouf ah ku ne xam na ne hmm, moom mooy eh, Saliou juuf le vice président chargé de la lutte sans frappe waaw waaw moom loolu la loolu la yore muy amal ah Saliou Diouf bokk ak du jànjee ñoom du jànjee ko kuréel ñoom ni un million cent daal teg nañ ko fa nga xam ne moo di ca kalum loolu sunu làmb ñu ci dikkal les arènes fi mu ñu dikkal mooy ci xëtam bu njëkk xulle mooy Sa Thiès Moussa Ndoye ba tey perkat yi moo cay wax nee na daal Sa moo gënoon nekk en l'aise moo gënoon oyof ci bés boobu waa loolu tamit daa mel ni bu fekkente ne am na daal xam naa kon feeñ na ca lamb ji ndax boo xoolee ni bi ko Moussa Ndoye songee ak ni ko contrôlé ba ni mu ko bëree ni mu ko wëree ba daan ko ah moo lay wan ne kon Sa Thiès tamit mu ngi woon ci combat bi di ko félicité ah Ah, di ko wax ne que lamb noonu la parce que bi muy mujj a defet lamb Moussa Ndoye tamit na xam ne nawlee ma ko daan mu liggéeywaat mën na dikkaat parce que si lamb la bokk te waaye rax ñu ngi si ginnaawam yaakaar ko euh, Franc moom nee na digganteem ak parcelle mbooloo moom nee na foofu moom abaana piw piw na nee na foofu moom nee na foofu loolu jërul sax wax nee lu jeex tàkk la moom daal nee na li muy rëccu ci àddina mu yéex a xam Papa ndax taxaw gu ko Papa di taxaw ak nu mu ko ubbile boppam jox ko këram jox ko léppam ba tax tey mu mën di def lii muy def Franc na kon amul fayu Papa Sow waaye mook parcelle moom mbooloo moom Franc na loolu moom jarul sax débat nee na lu jar tàkk la waaye lu bu jeexee daal la leen ciy digal mu yow Franc xale nga mu ne ci carrière di dem parcelle mbooloo fa nga doore ak lu mën a xew rek muy sa côté di ci côté waa parcelle mbooloo lu lépp rafet ndax ànd daggan na waaye tàqalikoo daggan na waaye lu mu ci mën a doon xulle nañ ko rafetal ba mu rafet parce que àddina amul solo te lépp lépp lépp si net li lay mujjee kon mbir yi ànd yi nay rafet daf ciy am solo di am sutura di am bàyyante xel di sóoraale ëllëg ndax olof ne na booy xuloo xuus xulle bés booy juboo da ngay tefesu yàlla nañ ci yàlla musul kon loolu nañ ci bàyyi xel tafaatin yëglikaay bi ñu ànd na ci moom ci charge yu mu charge Pape Thialis Faye kera waaye li ci am daal xaw ma charge sa xaw ma uppa waaye loo ci mën a dégg daal moom làmb ja moom mu ñëw waaw waaw waaw loolu moom am na Pape Thialis Faye tamit ñu koy nuyu di ko ziar sama DG boobu borom Leewtoo production di ko ñaanal yàlla le huit ah. yàlla na nga réussir sa bés boobu yàlla na nga ko réussir parce tamit vraiment ku sonn la ci làmba parce ku ne xam ne bi mu bi mu ci at année bi mu ci ñëwee sauvé na làmb yu baree baree bare def lu doy waar yàlla dogal atum corona ñëw tëggaatut ba mu ñëwaat indi tafaatin booy ña kon ñu ngi ko ñaanal yàlla mu réussir ko parce que tamit vraiment xam naa ne ah ku bëgg a servir la kon itam moo tax fu mu toll ñun Pape dañ koy encouragé di nuyu équipe bi muy liggéeyal ñëpp rawatina suma jigéen Aïda Diouf maa ngi koy béggee bu baax a baax ñoom Babacar Diop ah ñoom Mansour ñoom Assane Waalo ñoom ñi fa nekk ñëpp hmm, ñoom ñëpp maa ngi di ziar di leen ñaanal jàmm ah ñoom matu jaxumpa ah, maa ngi koy béggee moom tamit di nuyu képp ku fa ne tonton Diaw suñu nijaay suñu lépp le futur maire des Assalem maa ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu groupe Leewtoo production bi yëpp yëpp yëpp du ma kenn kenn waaye di wax mention spéciale à Aïda Diouf waaw moom suma jigéen la ak kan Mané Séri Naaba Moodu Mané waaw di la ñaanal jàmm parce que tamit fu ma jaar la te yaakaar naa ne tàqalikoo ba raf euh, ñaawul te itam loolu moom moom solo si àddina rek waaw xulle kon loolu moo fi dikkoon open presse mbay gu gi mu ngi Equivox TV nañ dem seeti ko ah lu mën a ñàkk gis nga affiche bii géej waaye moom fekkeen bi moom doxal nañu macha allah Alioune Seye dée ngi nii xulle Alioune ngi nii ah. gis nga Alioune Seye ngi nii nekk à droite Sa Thiès nekk à gauche ñaabu ndaw daan kon daal Youssou Ndour bu père Balla Gaye daan kon géejawaay daa mel ni weekend bii moom seenam weekend la daaloon parcelle weekendu 19 ba moo daalat waa géejawaay weekendu la 27 ak ñu jàpp yooyu loolu mooy làmb waa Fass tam kon weekend bi ñu jëm ñoom itam jëm nañ ci ñaari grand combat ndax général day bële ak kuli day bëre ak kuli fay samedi ah bët set Gris 2 bëre ak ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf loolu day am ci weekend bi waaye weekend boobu tamit ki nga xam ne moom moo di Mbaye Yékini di suñu frère ah di ku baax di ku nice xol daal bi suñu fàllu day tëgg di gën te ndongolo ak ki nga xam ne nii moom moo di Cheikh Tidiane Niang fa nga xam ne moom moo di ca Euh, suñu ba Mar waaye daf ci am benn drapeau boo xam ne da ko jagleele suñu concert pël bu rafet bu Baol TV kon loolu tamit di lu ñu neex ñu ñaanal Mbaye Yékini journée boobu jëy seen ak ki nga xam ne mooy Sam Mbaye ñoom ñëpp ñu tëgg ci weekend bi yal na leen ci yàlla dimbali ñu génn ci ak jàmm réussir ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom ñëpp suñu ay waaye lañ suñu ay nit lañ xulle li lay bëgg di la ñaanal jàmm di nuyu Habib di ku nga xam ne yaa ngi biir Equivox TV di ñaan jàmm Sénégal barke yonent bi sallallahu alayhi